المرسلين على صراط مستقيم لحن حق القول على ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء yokk seen tawfiq yokk seenu liggéey ca nangu liggéey ci barke Sëriñ Tuubaa di sant mboolem koo xam ne waajur nga ci daara ji ndax ñoom itam euh, ñu am solo lañ ci daara ji ndax bu ñu ko indiwutoon ay xale kon jàngale du mën a am kon bi ngeen di beral ak cant ak donte itam cant googu euh, ñoom seen bopp ya war na diggante ak bi waaye sëriñ bi tamit leen di sant ci loolu di sant moo dem ñi nga xam ne ñu ngi taxaw daara ji muy waa xidmatul xadim ak ñu mën a nekk ak ñi nga xam ne ñooy taxawu daal ci wàllu set gi ak ñi leen di taxaw ci wàllu euh, fóot gi yëpp euh, daara ji nag comme ni ñu ko yàgg di waxee sëriñ bi bi ngi ko sos ci atum 2002 booba Cheikh Salih radiyallahu anhu moo nekkoon mu demoon ca laajoon ci ndigal mu jox ko ko ñaanal ko ci jàppale ko ci sëriñ bi ñëw sos bi mu ko sosee itam booba ku fi ñëwoon te gis ni sëriñ bi sose woon daara ji da nga xam ne pas-pas rek mooy li am solo ndax boobu defe naa mel mbaar bu cinq mètres moo fi nekkoon ak ñaari néeg boobu itam la nekkoon ci ay donga mi ngi tolloon ci juróom-ñaari donga boobu la fi nekkoon ak sëriñ bi sëriñ bi nekk ca solo di bi nekk ca ba ku ne xam na ne tey alhamdulilahi rabbil alamin ngërëmu sunu borom subhanahu wa taala rawatina téere bi yàlla bi képp koo xam ne taxaw nga ci te taxaw ci nam ca war a taxawee kanam rek lay jëm waaye du du mas a di fi liggéey di fi jàngale euh, wut jàngalekat bu fi nekk euh, ab mu xam ne mbir bu nekk nag day aaje di yokk moo tax Euh, incha allah danañ ci egsi ci kanam mboolem yokku yi nga xam ne daara ji jur na ko euh, kon dafa mel ne diggante ba mu ko sosee ak tey mu ngi toll ci fukki at ak juróom-ñett ci diiru fukki at ak juróom yooyu nag résultat yi nga xam ne daara ji am na ko ci wàllu njàngale mooy gis nañu ne li fi mokkal alxuraan ci biir daara ji mi ngi toll ci ñaar téeméeri donga ak juróom ñeent fukk 290 ay xale yoo xam ne fii dañu jàngee alxuraan ba mokkal ko ci biir 290 euh, yooyu nag ñi fi bind ay kaamil mi ngi toll ci 175 maanaam téeméeri xale téeméeri donga ak juróom-ñaar fukk ak juróom mokkal nañ fi ba bind fi kaamil loolu di liggéey bu rëy boo xam ne euh, Serigne Mame Bara amal na ko ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi yàlla dogal na itam ren jii di fi mokkal mi ngi toll ci fanweeri xale yoo xam ne mokkal nañ fi ñooy dal nii ñu nekk nii yàlla yàlla barkeel seen liggéey ñoom itam barkeel seen alxuraan taxaw leen te dimb leen bu baax barke sëriñ euh, am solo ci ci wàllu ndax maa ngi fàttaliku daaw jéeg bi ñuy dem ci sëriñ Mountakha def naa booba ñaar téeméeri xale li fi ma ko euh, ñaari téeméer nit rek day na ñëw ci àdduna xam nga da ñëw ci àdduna fexe ba moo ko doon ñaar téeméeri nit delluwaat loolu mu ko na ñëw ci am kon gën a yokk ba faaw lu yàgg lool ci wàllu sëñ euh, daara ji itam euh, alquranul karim lañ ko sosee comme ni ma ko waxee waaye bi sëriñ bi demee ba xam ne alquran moom mbir la moo xam ne nit ki da ko war a jàng ba mokkal ko waaye itam su ko jàngee ba mokkal ko daf ko war a jàng ba dégg ko su ko jàngee ba dégg ko nag mu war koo jëfee ca yàlla tax moo tax mu gis ne lee mooy pàcc bu njëkk bi mooy jàng ko ba mokkal ko pàccu ñaareel bi mooy jàng ko ba dégg ko ca mooy jàng xam-xam moo tax mu dëggal fi jàng xam-xam saa yu gone gi demee ba mokkal alquran tàmbali di jàng xam-xam ko boole ak beq su bu demee ba beq mi ak bind kaamil man naa daal yi dugg ci école bi nga xam ne mooy franco arabe bi dañu la ko daaw jëkk loolu incha allah danañ ci egsi léegi ci kanam euh, bu mujj bi mooy jëfe ko jaala tax jëfe ko jaala tax moo tax sëñ bi indaale ci biir daara ji tarbiya ndax kon xam ne tarbiya mooy defar nit ki ba mu mën a jëfe la mu jàng te yàlla rek tax euh, moo tax bi loolu amee sëriñ bi du ko fi jàng xam-xam ñu fi jàng xam-xam comme ni ñu koy defee ci gox yi baree bari nga xam ne nit ki su duggee ci daara ji buñ ko ay waajuram bàyyee ci daara bi bu fi génnee daanaka mën naa dañoo wuti leneen euh, loolu sëriñ bi def na ci jéego yu rëy rëy jéego yu kawe kawe ci wàllu njàngale bi itam ñu xam ne jëmmi sëriñ bi muy sëñ Mame Bara umpalewul xale yi seenu njàng fu muy toll ndax bis bu yàlla sàkk am na ku mu koo xam ne mooy saytu njàngalem xale yi xale bu nekk dala la saytu xam sam njàng lu ca dolliku ak fu mu toll mu waxtaan ci ak moom leeral ko ko loolu moom moo koy may ngir mu mën a xam njàngum gone yi ndax mi ngi dox nam war a doxee wala déet euh, day tegtal itam yitteel bu ko bi yitteel ba tey am programme boo xam ne ñoom ci lañ tënku mooy xale bi ñëw dañ koy tënkal ci benn programme boo xam ne bu ko suñu borom subhanahu wa taala dogalee ci moom mu muy ko war a mokkal alquran ndax mokkal alquran suñu borom moo ko dogal ci doomu aadama waaye bu fekkee bu suñu borom dogal ci moom la ci ko war a mokkal gën gaa yàgg ñetti at ñeenti at incha allahu taala du ko weesu suñu borom def mu mokkal alquran ba tey kon ni ñu ko waxee ni mu fi indee njàngum xam-xam bi nga xam ne noonu lañu jàngee xam-xam ci biir daara ji ba tey itam ñu xam ne noonu lañu fi jàngalee alquran noonu lañu fi jàngalee xasiide Serigne Touba ndax Euh, yàgg nañ ko wax yi mooy li gën a mën a defal te moom tarbiya ñooy ànd ngir nit ki mën a defaru ci jikkoom moo tax sëriñ bi indi bi ay xasida yoo xam ne aw sas la nga xam ne képp koo xam ne da nekk ci daara yi da nga koy mokkal xasida yooyu itam ñu ngi koy jàng diggante àllarba ak alxamis ba àjjuma ci ngoon te dañuy jàng xasida yi euh, kenn ku nekk itam ñu jox la sas bi nga xam ne fokk da nga koy mokkal li ngay mokkale alxuraan Euh, bi loolu amee nag loolu xam ngeen ne programme bu yàgg ci biir daara bi waaye sëriñ bi dem ba xam ne yaatal bu mu mën a ñàkk yaatal ngir mu nekk yaatal ko day tax euh, mu yaatal ko dem ca topp bi jóg def fa daara joo xam ne euh, ci ndigalal sëriñ Sidi Muxtaar la ko defee moom itam comme ni programme bi doxee fii noonu lay doxee foofa xale yi di jàng alxuraan di jàng di jàng xam-xam waaye di jàng xasida comme ni ñu ko waxee fii rek noonu la programme booba di di doxee. Euh, bi itam mu dem Mbacke Kajoor dem Bouchra dem Bandiran dem fu xam ne. ngir mën a gën a téye bi ba li mu bëgg def ci moom mu ko ci moom nam ko bëggee te mooy li ci mooy li ci am solo programme boobu itam wax dëgg yàlla bi mu koy tàmbali xëy na xawoon naa métti ci jamono ndax booba jamono miinagul woon loolu. waaye fi mu ne alhamdulilah rabbil alamin kon xam na ne euh, nañ ba jamono xam ne loola nekk na loo xam ne lu mën a nekk la mooy téye xale bi jàngal ko alquran jàngal ko xam-xam waaye itam yar ko ba bu génnee dem ci ay waajuram bu dee ko war a liggéey wala ko war a defi dara day def directement dem ci la mu war a def waaye amul lenn loo xam ne daf ko yittoowaat euh, bi mu demee itam ba gis ne ñu bari ci nit ñi lañuy gis ne léegi buñ jàngee alquran dañu bëgg a jël seen i doom yóbbu leen ci daara yi ci jàngale kaay jàngkaayu français yi ñu jàngi français ndax loolu jamono moo toll foofu ci la sëriñ bi wax ne léegi ñu dugal ci daara ji njàngum français loolu itam waxoon nañ ko fi lam ci jublu du caagi ne day jubloo jàngale français bi waaye ginnaaw moom day liggéeyal yàlla ca liggéeyal yàlla ku ne xam na ne dafa war a àgg ba bu xasee àgg yàq loolu ca topp moo tax mu dugal fi jàngoon français bi ba ki nga xam ne jàng français dong lay def loolu doomam mu man ko bàyyi ci daara ji ñu def ko ci moom nam ko bëggee te du tax diineem dañ te itam diineem ji li war a nekk ci moom day nekk ci moom comme ni ko sëriñ bi bëggee comme ni ko ay wayjuram bëggee waaye nag comme ni ko suñu borom subhanahu wa taala bi nga xam ne moo ko moo ko digle noonu la ko bëggee loolu waral na mu dem bay indi fi jàngum français nga xam ne xale yi dañ koy jàng ba ren sax euh, résultat yi ñu ci am ne gis na ko am nañ 91 pour cent ca 100 pour cent dañ leen doon laaj euh, fële ca Ilipor foofu la daara jooju nga xam ne am na fa euh, sëñ Codé moom mooy mooy mooy mooy mooy ki nga xam ne mooy kilifa ba ci wàllu njàngale moom oustaz Xaadim bi moo koy wàllu jàng xam-xam ba ak ku ñuy wax Moussa Kane ak Moussa Kane ak Moussa Sall ñoom ñoo fa nekk ci wàllu français ba di jàngale ñoom itam résultat boobu nga xam ne am nañ ko ren. day lu am am solo loo xam ne lu war a yaatu la ba nit ñi xam ne ndekete eh, jàng français xam ca lañ ca war a xam wuurta tee nga mën a jàng alxuraan te jiital ko ndax mboolem ñi nga xam ne am nañ diplôme yooyu jàng nañ alxuraan ba noppi dem fa eh, jàng franco arabe jàng français ba yàlla ko ñoom ay diplôme eh, loolu di liggéey bu am solo boo xam ne ren feeñ na ci daara ji di barke boo xam ne itam Serigne Touba fàggul na ko fàggul na ko ci daara ji fàggul na ko itam waa daara ji ñoom ngi leen di sant ndax bu dul woon seen pas-pas bu seen taxawaay xëy na xale yi loolu ñu xam wala ñu am ko duñ ko mën a am duñ ko mën a xam waaye seenu farlu ak seenu góorgóorlu ak seenu dagg seen yitte nekk ci liggéey bi nañ ca war a nekke moo war loolu mën a am sëriñ bi mi ngi leen bu baax di gërëm di leen ñaan uh, at mu jot rek yàlla na yokk ca bañ a wàññeeku mu ci barkab sëriñ Tuubaa uh, su ko defee ñu xam ne itam comme ni ñu ko waxee daara ju nekk day tënku ci programme programme bu daara ji sëñ bi da ko tënk ci programme boo xam ne xale bi du am jot du am jot ndax xale boo amee jot rek day daal di nekk ci lu mu a nekk wala mu bëgg a dugg ci lu mu dugg moo tax njàng bi niñ ko tënkee bu ñu xasee ju 4 heures ci guddi ba 6 ci la ñu su ko defee bu xasee euh, jug 6 heures 8 heures la ñuy la ñuy la ñuy duggaat ci mbaar mi ba midi bu defee bu midee ñu génn bu midee ba 15 heures muy 3 heures ci bëccëg ñu dugg ci mbaar mi. ba 18 heures ñu génnaat su ko defee bu 18 heures 19 heures ñu duggaat ci mbaar mi ba ñu ñu doo génn nga xam ne xale bi diggante bi muy am du ca tal dara lu dul noppalu ko mën a delluwaat ci ci ci yitte yi ba tey ci wàllu yokkute gi nga xam ne daara def na ko ca yàgg na mooy wàllu paj ndax ku ne xam na ne nit bu wérul liggéey ba mu war a def du ko du ko def nam ko war a defee moo tax ci biir loolu sëriñ bi dafa wut benn médecin boo xam ne moom mooy saytu wàllu wér gu yaramu daara ji ci gone yi nga xam ne bis bu nekk dana ñëw suba ak ngoon di xool gone yi seen wàllu wér gi yaram ndax kenn ku nekk lii nga soxla ci wàllu wér bi ngi ci yow wala déet saa yu gisee ne kii aajana faj su boobaa la ca war a cay def moom sëriñ nañu ko xamal itam su demee ba gis ne wéerandi gi jar na yóbbu hôpital dañ ko yóbbu hôpital suñ demee itam ba weesu koor ñu doog ko yëgal ay juróom su ko defee waaye lépp sëriñ bi dana ci def kem kàttanam ba yëgal ko ay way juróom door ci sës mu soo ko soo ko yëgle euh, te bañ na ko sax ba dafa wut ab euh, def ko pharmacie boo xam ne dafa nekk ci biir daara ji xam ne mboolem garab goo xam ne dañ koy yittewoo ngir jëm ci wàllu doomu aadama yi ci ëpp day nekk ci pharmacie bi nga xam ne du jar sax nga di ko wuti faneen wala ay way juróom di ca di ca di ca joti euh, yooyu mooy yi nga xam ne ay programme la yoo xam ne daara ji dañ ciy tënku am na yeneen waaye ci gàttal rek ci tënk loolu mooy li nga xam ne daara ciy tënku mooy ca ma tënk ci ñetti poñ mooy jàng alxuraan ba mokkal ko waaye jàng ko ba dégg ko waaye jëfe ko ci yàlla tax Euh, bu jàngee alxuraan ba mokkal ko dañ lay jàngal xam-xam mooy tax nga mën a xam alxuraan waaye itam dañ lay tarbiya mooy di la jàngal xasiday sëriñ bi moo tax ñu wut aw sas woo xam ne euh, nit ki da koy donga bi da koy mokkal su ko defee léegi mu mën a defar xolam mën a defar xelam ba tax mu mën a jëfee lam yàlla rek tax ba itam mooy li nga xam ne moo ci daliku mooy ci wàccaayu taaral mbirum àdduna ndax ku ne xam ne ne wala tansa a mina dunya loolu moom suñu borom moo ko wax te ala kulli xaalin àdduna moom nit ñu ànd su ko defee moo tax sëriñ bi itam mboolem jumtuwaay yi nga xam ne àdduna daf koy laaj moom jël na ko def ko ci daara ji ngir ñi nga ne ñoo nekk ci daara ji man di ci tënku ba duñ gis laneen loo xam ne ku dul ñoom amu ndax nit ki bu xase ba euh, mokkal alxuraan am na loo xam ne ku moom amu kon li am solo mooy waa àdduna la ñu am yow la nga ca munta ñàkk yow danga koy am ba noppi yow nga am loo xam ne ñoom waa àdduna xamuñu ko sax ba di ko bëgg loolu moo tax sëriñ bi wax lu nekk muy sonn ci di yée yée it daara ji yitte daara ji di yitteem lépp loo xam ne daara ji soxla soxlaal na ko mu di def kem kàttanam te it loolu dafay ñaan yàlla waxtu wu nekk at mu jot comme ni mu ko defee nga xam ne daara ji kon a xam ne yokkute gu rëy rëy am na ci Euh, mu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala di gën a takku di gën a laxasaayu mboole ak mboolem ñu mu àndal liggéey bi ak mu jot loola jëm kanam